jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi gërëm nañ leen bu baax a baax santati leen jaajëfati leen bu baax a baax ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun. tey nag xam ngeen ni bala ñoo commencé ci waxtaan wu am solo wi ñu bëgg a waxtaan xam ngeen ni plateau bii ngeen ñu gis ak bi ngeen ñu daan gis bokkul lan moo waral changement yi ak lu xew ci diggante bi lu fi soppeeku loolu lépp dinañ ci ànd ak sama doomu ndey. sama kilifa sama xarit sama lépp muy alaaji Sanjogu Mbeng ñu waxtaan ci changement yi doog ñëw ci liñ leen indil tey ndax xam ngeen ni saa ngeen ñu gisee ñaara ñu yëkkati muy wax leen li boutique solution di doxee ak li liñ ciy jaay ak actualité yi nga xam ni sénégalais yi dañu cee xaar ñoo ngi ciy ñëw léegi lim ñi xam ni ñoo ñu nekkal fële ci biti réew alaaji Sanjogu Mbeng xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké ca Touba di xarit ci Serigne Daara yi ma bàyyi ko mu nuyoo ñu ñëw ci changement wu plateau yi dugg ci waxtaan wi alaaji son yu maa ngi lay fay. di la mm-hmm. ziyaar di kontaan ci yow bu baax a baax. Mm-hmm. Eh, di la ñaanal jàmm. jaajëf di nuyu bu baax. Mm-hmm. sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu. waaye dañuy dem ba Touba nuyu xarit général des Mourides sëñ Mountakha. waaye di nuyu sunu sëriñ sunu xarit. muy sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké. Eh, sooy bu di kontaan bu baax a baax. ci tey jii daloo bi nga xamante ni bii daloo nañ ko. barab bi nga xamante ni bii. mooy barabu boutique solution. di wax ni mbégte gu rëy am nañ ko ci. daloo gi nga xamante ni bii daloo nañ ko. di dellu di gërëm. sénégalais yi. di wax ni. sooy bu damay faral di wax ni bon gis nga jub. jub waaw. mën na may doomu aadama lu ne. Mhm. parce que tey defe naa ni li ñu toog nii di ko wax ci palaas bi. Mhm. du jubadi moo ñu tax ñu yegg si fii. Mhm. mais ci jubal. ci lañ ne sunu boroom def nit ñi wóoluñu ci jub googu. ba tax tey ñu mën a ñëw toog ci sunu barabu bopp. jàkkaarloog askan wi di waxtaan ak ñoom. kon donc dañu koy wax ñépp ñi nga xam ni ñi ngi jubadi ñu jéem a jubal te xam ni ci jubal ci ngay am lu sedd sab xol vraiment ñi ngi amaat mbégte ak sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ñu jox confiance di leen ñaanal di wax ni vraiment kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax. Mhm. parce que confiance biñ ñu jox moo ñu mën a indi tey. Mhm. ci niveau bi nga xamante ni bi yegg si nañ fi. Mhm. te yàlla na yàlla xeeb dolli. amiin incha allah donc ñi ngi leen di gërëm ñoom ñëpp. muy ñi nga xam ne ñi ngi seetaan suñu vidéo ak képp koo xam ni mës nga. yëkkati sa kàddu jëmale ko ci nit. ne ko ah ñooñu de doy nañ ma. ba tax koo ko ñëw. xamal ni. bokk nga ci ñi nga xam ni. Mhm. yaa taxawal barab bii ñu ne. macha allah donc du barab boo xamante ni bi ñun ñoo ko taxawal mais askan wi ñoo ko taxawal. Mhm. te ñi ko taxawal vraiment. Mhm. defe naa ni ñoom itamit amuñu ci lenn lu leen naqari lañ waxante woon ak ñoom ca njëlbeen ga seeni garab peut-être am na ñoo xam ne yéex nañ cee jot. waaye loolu ca njalbeen ga la. Mhm. mais defe naa ne bi ñu commencé changé ni ñuy liggéeyee ba nëgë ni. Mhm. amatuñu garab tàggatu fi. te it amuñu kenn koo xamante ni kii. la ñu digaale woon ak yow defuñu ko. Mhm. te it yëg nañ ñi liñ leen di jox. wax dëgg fa yàlla. wute na ak lañ daan jël. donc ñuy sant ñi ñuy collaborer yëpp di ci ànd ak ñoom ci liggéey bi. soxna Oumy. soxna Mariam. Mm-hmm. ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Basiiru mm-hmm. ak euh, soxna Nabu ca Amérique mm-hmm. ak ki nga xam ne moom la wax Yaya Bangoura ak sëñ Modou Wilane ak ak Ibrahima euh, ñoom ñëpp daal ñi nga xamante ne bi ñi ngi ñuy jàppale ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm waaye tamit di gërëm aussi tamit ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii di liggéey ak ñun waaw ku ci mel ni Assane Mesere nga xam ni Baye Fall de wax dëgg fa yàlla taxawaayam Baye Fall bi mu taxaw. daal di ñeenti weer yi lim yanu. waaw lim yanu vraiment kii na. di nuy tamit Abdou Top. ci taxawaay bi nga xamante ni bi vraiment taxaw nga ko réalisation bi ak mhm. lépp lu nga xamante ni bi jëm na ci wàllu liggéey bi mhm. la mu cay liggéey mhm. ah, ñoom béti mbuub Caba eh, Caba. Mm-hmm. Penda Diallo Guèye. Mm-hmm. ak tamit Aïcha. Modou Diouf Modou juuf mm-hmm. voilà ma jigéen Diop. vraiment ñoom ñëpp nga gis taxawaay bi nga xam ne moom lañ. taxaw jàppale ñu. Ablaye Diallo vraiment ak Ablaye Diallo jàpp ci <laughs> liggéey bi. vraiment pour mu mën a yegg si fii mu yegg si tey. donc mbégte ak bànneex gu rëy. lañ ci am. Mm-hmm. vraiment ci daloo bërëb bi. donc daal loolu laa doon ubbee gudd na. waaw mais baax na <laughs> baax <laughs> am na ci solo kon mbokk yi bërëb baa ngi noonu taax moom ngeen di seen euh, bërëb boobu ngeen di seen eh, mu ne ci kaw noonu tableau bi ne ci kaw moo jàkkaarloo wal fajri kon yéen ñi nekk ci Dakar ak li ko wër su ngeen ñëwee ba wal fajri rek ñoo jàkkaarloo en face. su fekkee ne da nekk bitim réew jarul ngay ñëw Sandiogou lim na ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool soxna ummi ca Dubaay ak Maroc ak ca fi nga xam ne mooy itali soxna ummi moo fa nekk bu dee ca Espagne Serigne Bassirou Samb ak Serigne Modou Wilane bu dee ca Amérique euh, soxna nabu gay sénégalais Sista moo fa nekk ak Papa Gaye bu dee fële ca Gambie nag Yaya Bangoura moo fa féete mbokki kon bërëb baa ngi nii xam naa suñu deuxième numéro incha allah di ngeen gis yeneen parties yi parce que moment bii ñuy wax nii gaa yaa ngi ci bureau yi di installé yeneen mbir yi xam naa di ngeen gisaat yeneen décor yi incha allah ñu wan leen ko pour ngeen xam liggéey bu am solo bi jërëjëf alaaji wax nga kàddu gu ma neex nag muy nit lépp lu mu am rek na xoolaat kàddoom ndax kàddu daanaka ci la ñuy jàppee nit ci la ñuy bàyyee nit. Mm-hmm. jërëjëf mbokk yi photo bii ngeen di seen euh, ñu la suñu réalisateur bi di ñu ko illustré noonu muy euh, ki nga xam ne mooy Simon nee nañu bàyyi nañ ko ngir tawatu yaram goo xam ni moom la doon wuyaale ci biir kaso ba loolu daan ci ñëw jàngat ko incha allahu rabbi euh, politiciens yi nga xam ne ñu ngi def porta à porte di dox mbokk ka def yëf daan ci ñëw élection yi la wala mbaax la wala lu bees la lu mu ci doon daan ci dikk taala si la mi nga xam ne nee na sa Seck dafa jébbalu woon Tiwaawan ngir ay intérêt politique daal di fay lu dem jébbalu Touba ngir intérêt politique nee na bàyyi na ñaari këri diine yooyu yëpp nee na dem na jébbalu ci président Macky Sall loolu lépp daan ci ñëwit jàngat ko muy ay mbir yoo xam ne romb na fi euh, ji kon foofu la ñuy doore rek waaye balaa loolu du ñàkk ñu fàttali sénégalais yi comme ni nga fi wax léppit li may jotaay bi mooy ñetti garab yi mhm. hémorroïde siti ak kàttan waaw waaw mhm. euh, di wax ni ko dinañ ci ñëwaat léegi ci ak yaatal léegi nan nga gisee waxu Talla Sylla bi Idrissa Seck de traité na waa ji traité na ko lu nekk ñàkk ngor amul kóllëre boppam rek la gëm boppam rek ko ñor waa xam nga euh, loolu moom. Hmm. Euh, jàpp naa ni Tall Sylla bu ko waxee. Hmm. Euh, jàpp naa ni moom it moog Idrissa Seck benn lañ rek. Hmm. Ah. parce que Tall Sylla li muy wax noonu moom it loolu la def askan wi. waaw parce que ay jamono kenn déggatu ko mu wax. moog Idrissa Seck ñoo ko niróole rek. njëkk a dem laak keneen ku dem amee taala daaj na fi lu nekk ba ñu tuddee ko taala taala marto. waaw boobu. dal na ko ay marto dafa am lu mu gëmloo woon sénégalais yi nga son bu. waaw euh, ñoom ñaar ñëpp ñoo yam xanaa kañ idi <laughs> dafa am tàngal bu mu joxoon taala ba ci yàgg bëgg a jël tàngal ba jox ko keneen. Ah. loolu bokk ci li tax taala. Hmm. ay intérêt moo tax muy wax mais waxut ngir intérêt sénégalais yi. Hmm. donc li mu wax noonu yëpp moom ak Idrissa Seck ñoo ko nuróole. kon li tax taala di tàngal dañoo nangu tàngal ba. dañoo nangu tàngal ba bu du tàngal ba taala du tàngal <laughs> loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li ne gis nga son yi alaaji euh, Idriss Seck li ko defoon li mu ne waaw mooy élection yi ñu génn mhm. nit ñi topp ko am ñoo xam ne voté nañ ko ba mu nekk deuxième mhm. daf leen a jëndee tey poste bii nga xam ni fa la toog. Mhm. kon Idrissa Seck taala mënu koo gën a sénégalais yi xam nañ ko. Mhm. xam nañ ana kat mooy Idrissa Seck. Mhm. ak ni nga xamante ne bi noonu lay doxale defe naa ne tey bu doon xëccoo chef de quartier. feneen fu dul fa mu dëkk ca Thiès googu ngir mu ñu fal ko problème lay doon parce que nit ñi nawlootuñ ko mais moom moomu tamit moom Talla Sylla la. moom ak Idrissa Seck man pour man ñoo yem benn atte. Ah waaw man moom ñoom ñaar. ñoo yem benn atte pour man. parce que sama gis-gis daal Talla Sylla la. Hmm. li taxoon yenn nit ñi. Hmm. identifié wu ci ñoom bul xeeb même boo demee ay élection hmm. euh, am na nit ñoo xam ni gëmoon nañ idées yi nga xam ni moom nga gëmoon. mais ñu ci bari idées yi ñu gëmoon ak ngëm-ngëm gañ amoon dañ koo mujj jël teg ko fële. ne ca leneen. te loolu nag nekk na loo xamante ni bii. Mhm. Euh, vraiment vraiment jaaduwul. macha allah voilà donc man Talla Sylla daal. Mhm. moo Idrissa Seck man seeni mbir. kon Talla ëllëgu politique am lan la nga yaakaar. Euh, euh, mooy xam bàyyi xanaa mooy ëllëgu politique am parce que munu cee am la mënatul kii maire bi mu ci nekk bu ci bu ci bu ci nekkaatul maire dootu ci nekk dara ah góomu mu nekk dara xanaa muy topp ci keneen koo xam ne dañ koy fal parce que mais loo xam ne askan wee koy joxe. Mhm. duñ ko jox dara. macha allah waaw. mi ngi noonu mbokk yi yow mi seetaan jamono ji ci TVSA man nga abonné aimé boole ceeg di partagé nag vidéo yi muy dem fépp ndax ñu fàttali itamit ni fii ñu nekk ci solution euh, TVSA ak GCB ñi ngi ci biir loko yi. waaw ñu ngi ci biir boutique solution TVSA ak GCB benn lañu. Euh, ñoo bokk fu ñu nekk. alaaj euh, alaaji lu jëm nag ci wàllu ki nga xam ni moom mooy euh, politicien bi sax bala ñoo ñëw ci li nga xam ni mooy li ñu war a kii mooy politicien yi def porte à porte dox mbokk ak def yëf mu rafet lool. waaw ndax tabarkàlla bu ñu demee ba gis politicien yi di dox mbokk loolu moom sant yàlla ndax daf mel ni yëf yaa ngay changé. waaw man loolu vraiment pareen saa yi ma gis politicien def loo xam ni yabaate laa koy jàppee maanaam jàppee sax askan wi ne duñu xalaat. yabaate xam nga dafa am loo xam ni son bu waaw man mii tey bu fekkoonte ni hmm. damay soxla mairie bu Géejawaay hmm. génn ah. di dugg ci kër yee ka dugg génn waaw waruñu maa voteel ah lu tax xanaa dëkkoo fa. parce que non non est parce que dañoo war a xam ni kii da leen a yëpp daf daaw ko def. Hmm. daaw ko def am na loo xam ne bu ko nit ki daawut def. ba ah. soxla. Ah. di ko soog a def bu ko kenn jox. kër gu ne mu dugg fa. waaw bu ko kenn jox. parce que loolu yàpp nit ki la jouer sax ci intelligence su nit ñi la. comprendre nga. Mhm. yow da nga daan romb nit ñi tëj say vitre oto. waaw kenn du la teg bët. vitre tente nga daa dee tent say vitre. Mhm. bu ñuy joxe naan ma nga nële. Mhm. nga leen di romb fif faale leen. dem ba soxla leen. bokk ak ñoom naan yaa ngi lekk ci gargot yeeg. naan jox ma pain mayonnaise. diwul ma ci ton reetaanaloo ak ñoom toog fekk booy di naan ataaya nga ñëw toog. ne yaa ngay naan caayin ñu naan fii la nekk bu la kenn voteel parce que dañuy xam ni kooku ku ko voteel nag ëllëg si biir lu la ci dal ëllëg bu ñu waxam parce que baadoo la ngay fal ki ngay fal nit la koo xam ni amut jom parce que ñàkk jom a tax muy def yëfu ñàkk jom yooyu buñ ko mësaan a gis rek ci télé lañ ko gis buñ la mësaan a gis ci télé lañ la seen mm-hmm. mosoo leen a faale mais léegi da ngay gis ci commencé lu ne dañ ko def puus puus puus waaw yéeg fii ree dugg yéeg sareet tàllal loxo lu ne danañ ko def pour nit ñi bëgg leen naan pour wan nit ñi ne man ak yéen a yam yamut ak yéen de bu yamoon ak yéen mhm. ba nga xam ni soxlawut la ngeen nekk la doon ne dañoo yam ak yéen waaw mais bés bu ngeen ko falee mu delluwaat ca lam ne woon gën a tent ay vitram mhm. du ngeen am ci moom accès su boobaa du leen faale mhm. parce daf leen a utiliser ndax leen donc képp koo xam ne noonu nga mel sa xam ni diw nii la mel lillaay war a suuli bu leen ko fa ki nga xamante ni ki noonu la mel sax garde ni mu mel ba noppi campagne ma ma voteel ko moo ma gënal ki nga xam ne dafa ñëw ne ma wàcce naa sama bopp tey ndax mm-hmm. damaa soxla mm-hmm. votel ma ma lay voteel parce que boo ko voteel it ëllëg si biir mm. day delluwaat ca nguur ga nguuru dootu la faale. macha allah bu boobaa nag bul wa yedd kenn naan way fii la doon nekk di naan ataaya non ngir jotoon hmm. ci poste bi. moo la ko taxoon moo taxoon muy naan ataaya. macha allah mi ngi noonu kon conseil bu mat a am solo la bu mat a jàllale ci askan wi pour ñu yeewu nag parce que nag 1960 ba léegi dañu ñoo dëkkee di nax même politique Alaaji Simon. ak ki nga xam ne balaa loolu yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel euh, boutique solution ay numéro mi ngi noonu 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 bu dee fii ci Sénégal. waaw bu dee ci bitim réew soxna ummi <laughs> euh, ak kii def naa ni topp mi moo koy wan noonu. bu dee soxna ummi lu jëm ci Dubaay Maroc ak Italie. Hmm. numéro baa ngi noonu di affiché yéen ñi nga xam ne yéen a ko bëgg a jot lu féete ca diwaanu euh, diwaan yooyu ma lim. bu dee fële ca France soxna Marianne moo fa nekk. Mhm. ngeen jot ko ci numéro yooyu nga xam ne mi ngi affiché ci mi ngi noonu moo nekk foofu la ca France képp ku ne ca France rek jarul ngay ñëw ba Sénégal. Mhm. bu dee ca Espagne nga fekk fa Serigne Modou Welaan ak Serigne Bassirou Samb. Mhm. seeni numéro yi tamit mi ngi noonu di affiché ci barre écran bi lépp loo xam ne jëm na ci foofu ngeen daal di koy jot. Amérique ak li ko wër soxna Nabou gay sénégalais siste moom moo féete foofule euh, ca Amérique numéro mi ngi noonu su fekkee fii la nag ci suñu dëkkandoo yi Yaya Bangoura moo fa nekk. ngeen mën koo jot euh, ci numéro yooyu nga xam ne mi ngi affiché ci baaru écran bi alaaji euh, kon képp ku ñu bëgg a jot daal fag ñuy jotee. Mhm. voilà waaw di wax ni euh, ñii son bu lim. waaw sunuy garab moom la ñuy jaay. Mhm. mooy garab yi nga xamante ni bii moom la boutique solution yor. Mhm. garab yooyu mooy yi nga xamante ni bii moom la ñuy jaay. képp koo xam ni roofaloo nga ak ñoom ci suñu garab yi mhm. sa xol dina sedd comme ñi nekk fii ci biir réew mi ni seen xol di seddee mhm. di wax ni fàttali ni hémorroïde mhm. gisuñu garab gu ci gën suñu garab siti noonu tey di dell di fàttaliwaat ni néew kàttan bi waxuñu leen benn yoon ne buy traité lañ yor ba tey nag mi ko son yi bu di waxee ñi ngi tàllal loxo képp koo xam ni mën nga ko traité Mm-hmm. waaye bi ñu yor amul effet secondaire mais dina la dimbali ci sa sëy jërëjëf mm-hmm. waaw Aïcha mi ngi noonu kon pour leeral ko bu baax a baax ñu xam ne bi ñu yor moom tabarkàlla effet secondaire bi mu am daal mooy da nga yàgg ca lal ba boo ca daawul yàgg alaaji Simon mii ñuy séen topp di ñu ko illustréel euh, nee nañu bàyyi nañ ko mm-hmm. sukkandiku ci tawatu yaram gu mu amee waaye nag bàyyi nañ fa kañ ko jàppandaloon muy euh, kilifa noo jàngatee ñoom ñaar seen dossier ba fii mu yegg si te ñaar ña nga xam ne ñoom lañ ko bokkaloon nee nañu simmi nañ seen mbalaanu kiiraay bay bëgga a dugg ak ñoom ci procès. Mhm. waaw euh, macha allah. Euh, mhm. ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax euh, Simon. Mhm. ñi ngi koy ñaanal wér. ko ñaanal daal mu daal li nga xamante ni kii moo ko dal. waaye aussi tamit di wax ni. kilifa. man dama jàpp ni. ñoom ñaar ñëpp war na woon nañ leen a mën a bàyyi. nga xamante ni bii ba ñu muree seen maraanum kiiraay ñu ne ñu ngi koy ba léegi ñu ngi wëndeeloo ko tambaambaalu. waaw Simon mënta rëcc. déedéet fa mënta rëcc. déedéet ñu ngi ci biir réew mi. Mm-hmm. ñooñu je pense que ni. Mm-hmm. war nañu leen a mën a. Mm-hmm. Euh, lijjanti. dégg nga daal di leen defal li nga xamante ni bii moom lañ leen war a defal. maanaam. Euh, bàyyi leen ba saa soo xamante ni si. Mm-hmm. procès jot na wala boog mbir yi leer na ñu àtte leen ca da xam noonu la. mais alaaji est-ce que nag loolu waruñu ko nga baalu foofu sax doguma la waruñoo commencé nag alaaji xoolaat mbir yi parce que mënuñu ku ñu dugal ci kaso bi ñu ni dafa feebar ñu génne la bu ñu demee temaate tuur ci kanam am na ñuy feebar feebar loo mais am na ñu feebar waaw mais comme fi ma bëgg a waxee kay mooy Simon ak waa ji xam nga nee nañu nañ parce que dafa feebar waaw kooku mooy boo yëngatoo mooy kaay wuy siwaat buur comme li dal tey Khalifa Sall Barthélemy Dias Ousmane Sonko looloo ngi ko doon yoot peuple bi ñoo ne du ci dal léegi su fekkee ni kuñ dugal ñu ne dafa feebar ñu génnewaat ko mbaa tey nit du dem ba bëgg a am xadaram la sëñ Baara waxoon mooy ku yëngu ñu la kaay wuy sëñ bi léegi nag mooy ku yëngu ñu la kaay wuy waat kaso bi est-ce que du demee noonu est-ce que àtte nit ñi bàyyi leen wala ñu wax leen nangam sax moo gën non bi moom mënoon nañ ko def bu ah, yàgg waaw je pense que ni affaire bi mënoon na mais nag waaw euh, xam nga feebar feebar yi mooy comme waajo dëkk yooyu buggaa nga xam ni moom moom wér na sax wér na te delluwut man moo ma jaaxal ba noppi doo laaj bu doon wax naan day laaj mairie bi pour dugg ci mairie bi yow nga war a dem dugg ji waat fa nga jóge woon ginnaaw wér nga doo war a laaj waaw ah, mais daal di wër di commencé di taqal ay kii ak affaire yooyu li am solo son bu alaaji waaw mooy euh, Simon mm-hmm. muy Simon muy kilifa mm-hmm. defe naa ni li am solo mooy ñu atte leen daal de xool li nga xam ni moom moo ci ne mais nag xam nga tamit nit bu feebaree tamit am na fu ñu ko war a mën a yóbbu mhm. mu am na ay pavillon spécial yoo xamante ni fa lañ doon yóbbu ñi nga xam ne mooy kii mais li nit ñi mun ta nangu mooy tey bàyyi bi ñu bàyyi Simon avocat kilifa yi dañu parce que amatul raison pa waruñu ko téye parce que nee na waruñoo téye lañ ko war a bàyyi mhm. dañ ko war a bàyyi mu daal dem c'est que. di mais bàyyi wut ñu àgg ci setal leen mais nañ leen setal alaaji wala ñu wala ñu àtte leen. waaw leen mu jeex kilifa dafa mënta rëcc sax. waaw mënta rëcc. mais li ñu ko bëgg a defloo alaaji baaxul. demal nga toog déglu léegi boo liggéey boo nar a yëngalaat ñu la kaay kaay wuy si waat buur. waaw si moom moom dalay wóor ne fi mu toll buy marche ñu koy woo. waaw lu mu kii ko woo. Mhm. parce que yi wax dëgg fa yàlla ànduñu tuñu ci ay marche ak ay kii ak dañ naan ko yow moom sa dossier ngi nii léegi nga gis pour yi sax commencé di ko ko mbalagee. donc yooyu yëpp tamit il faut que tamit nit ñi euh, bàyyi xel ci loolu mais daal li am solo daal. Mhm. mooy réew mi daal soin bi fi mu toll nii. Mhm. Euh, doy na waar lool. macha allah à chaque fois. da ngay gis kumba am ndey kumba amul ndey mm-hmm. te loolu jaaduwut ci réew moo xamante ni bi réew mu tegu ci yoon la macha allah parce que dafa am loo xamante ni bi tey mm-hmm. ki ànd ak Macky Sall ak ki àndut ak Macky Sall mm-hmm. ñoo war a yem ca justice. ñoo war a yem ci àtteb yoon. waaye bu fekkente ne bi tey dañ ne diw. APR la diw kii la. ka nekk APR ñu am beneen bët boo xam ne moom lañ koy xoolee. ka nekk ci nga xam ne citoyen simple wala mu nekk ci beneen parti. ñu am beneen bët buñ koy àttee. loolu nekkut loo xamante ni bii lu jaadu la. macha allah donc il fale que nit ñi bàyyi ci loolu xel bu baax. macha allah jërëjëf. ayca jërëjëf alaaji xam naa dama bëggoon sax tàggoo mais xibaar bi ma gis léegi ci internet bi ñu ni Barthélémy Dias da doon dox mbokk wala da doon dal doxantu wala boog nemmee ko ay mbokkam ñu ni euh, police bu jëppal da ko arrêté waa xam nga <laughs> day dellu si ci li nga doon kii mi li ma doon wax léegi waaw euh, bërki démboo Njaay Juub Saar wëndeelu na fi fu ne mu dugg fa waaw euh, Zahra Iyane Thiam waru fi bay lekk ci ay may gaak di lekk ci ay gargot ak di tappale waaw est-ce que jàpp nañ leen léegi lu tax Barthélemy Diaz ñu ne ma ngay wëndeelu ñu ne dañ koy téye bu fekkente ne bi lu wér la waaw lu waaw parce que internet internet bee ko bind internet léeg-léeg du net mhm. waaye léeg-léeg it mu net bu fekkente ni bi lu wér la mhm. da lay wan ne la rek mhm. réew mi mi ngi doxee noo xam ni musiba naaru la dafa am yoo xamante ne bi sooy bu ci am réew tollee loolu musiba la dëgg la donc il fallait que nit ñi delloo si seen xel ñu xam ni Senghor daf fee nekk ba jóge fi mhm. Abdou Diouf nekk fi ba jóge fi mhm. Ablaye Wade ne fi ba jóge fi mhm. am na yoo xam ne réew mi xam ko dëgg la Macky Sall nag bu mu nangu nag yooyu di am ci magistère am macha na moytu fexe nañ ko joxe woon réew mi mu delloowaat ko askan wi sans xat damm ji. Mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni ne. moom laaj kon daal na yëfi tolloo daal. voilà macha allah jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi kon mi ngi noon lii la ñu indi woon tey mooy numéro bi njëkk ci boutique solution tey jëlee ci waxtu wi la ñu ci ànd ak yéen di ci enregistré gërëm leen bu baax a baax sant leen jox leen ab dig incha allah ci beneen numéro di ngeen gis yeneen réalisation ci biir li nga xam ne mooy lëkkoy yu euh, boutique solution asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.